di dañoo dem a dem a dem ba gis ne bassin bii di bassin Sébi Ponti ñu ngi koy remblai maanaam ñu ngi koy sëkk loolu inquiété waa gox bi yëpp def na di délégué de quartier wax na ko léegi ak imam euh, mu di dëkku Déni Malick Guèye Déni Demba Kodou Déni Babacar Diop école normale William Ponty euh, Déni Njarxej jam ñaaja yëpp ay Dugaar Mbunka Nduxura Ndooyeen ñëpp parce que bassin bi daf la doon situation bu nga xamante ne bii daf leen impliqué en en en avant wala en arrière ci ginnaw yene deuk yi dañ fee tollu ci kanam am yeneen deuk yu fa nek donc lepp lu am ci bassin bi rek dafa mën impacter si si si ñooñu donc ñooñu euh ci lim bu nga xamantene bi danaka tay fi mu toll nii ndaxte nu ngi ci suñu ñeenteelu weer ngi commencé doon lo xamantene dafa am solo parce que ëpp nañu ay téméri nit yo xamantene ni bés bu jot dañu jëk créer ben panel ne kat mbir mi il faut que nun nu jóg ñu ñu saafaraal ko suñu bop

donc mu doonoon aussi mbir bu ñu jaaxal parce que boo leen xoolee ñaari weer a ngi nii ci ginnaaw fële si zone de captage bi fële ci ci Pikine waa Eiffage am na projet bu ñu fa doon def projet boobu bañ ko fay def waa Descos dañoo ñëw toj ko te projet état la woon pourquoi parce que zone humide la ñu di ko remblayer donc mu jaaxal nu lool ñu bëgg a ñëw remblayer zone bi parce que am na opportunité am na benn domaine industriel bu nekk à à côté ñu di ko wax euh, Aprosi association bi nag dafa bëgg préserver environnement maanaam fexe naka lay aare suñu environnement fexe aussi ressources yi fi dexes néew ñu jéem a xool naka lañ koy protégé lu demee ni bassin bi am na yeneen i bassin parce que Bancaar mu ngi ci ginnaaw te Bancaar dañ koo suul te loolu situation bu garaaw la aussi parce que defar dëkk taxul ngay suul bassin am na dëkk yu nu ëpp ndox te téeméeri yoon te se bassin yi ñu nga ca biir dëkk ba mën naa citer Côte d'Ivoire gi nu jege nii mën naa citer Maroc mën naa citer Nigéria beaucoup de pays yoo xam ne man dem naa ma gis naka la nit ñi di dëkkee ci bii ak ak ak ak ndox bi ndegeex njariñ ba mu leen mën a ba leen mën a amal ak bi mu am si si si si si écosystème bi donc loolu mu di lu nga xamante ne lii lu lu lu lu lu regrettable la alors aar sa gox ne moom na taxaw na oo doomi diwaan bi yëpp mbootaay gi nag ñëpp ci bokk muy ndaw muy mag muy intellectuel muy béykat muy nappakat ñëpp ci bokk imam yi délégué de quartier ñëpp a ngi ci biir ñi nekk fii si gox bi ak ñi nekk bitim réew commencé nañu gis sax commencé à faire euh, biir ci biir biir bari ci biir fi mu donc aussi à part patrimoine agricole bu Sénégal aussi ñu parce que fofu peut-être di ngeen dinañ ci ñëw amna fa lu ëpp de hectare ak juroomi témèr yo xamantene yi mu commencé malheureusement té sauver triangle Dakar Thiès Mbour bi nga xamanteni bi fa lañ nek te lepp ñu diko ñu diko ñu di ñu diko taba tabax euh, ci biir contexte bobu nak bi ñu constaté que né amna ay action yu nga xamanteni ñu ngi koy agresser ci bassin bi ak si zone bi dem nañu ay yoon yoon waxtaan ak kilifa yi que ça soit euh, la mairie que ça soit la sous-préfecture que ça soit la préfecture autorité sécuritaire la gendarmerie ñi nga xamanteni ki l'environnement ñoo ñep ñu ngi doon waxtaan ak ñom di jokkoo ñom di defandoo ñom ay action semaine bi passé rek def nañ fi ay benn sortie bu nga xamantene bi ñun sous préfet moko moko diriger ko dirigé sous préfet bi Michel le maire ak euh, waa direction urgence environnementale ñom ñoko diriger ñu and fofu dem sur le terrain constater fa yu nga xamantene yi tay problème la lutax mu doon problème ndaxte entreprise yi Aprosy d'abord bi ñu koy installé dafa am ay sarta yu mu waxante won ak gox bi lutax mu waxante won loolu c' est important que ñëpp déglu zone bi APROSI jëkk nekk jam ñaajo moo ko ko jox délibéré ko jox ko si lu ëpp ñeen fukki hectare ak juróom bañ ko ko joxee aussi dafa am ay engagement yu ñu waxante woon li may wax di mu ngi ci ci ci ci ci ci étude yu APROSI tey bu ma leen joxee projet APROSI dinaa leen jox référence yi wala dinaa leen envoyé ay image ay documentation d'ailleurs document bi mu ngi su suma suma suma suma oto war naa ko yor parce que ba ñu koy def gis naa ne document bi lu ci ëpp ci sunu liggéey la woon si plan d' investissement communal moom la ñu tout étude bi ñu def yëpp sur le milieu physique foofu la ñu ko jëlee référence yaa ngi ci biir euh, document bi kon ñun ja ñun ñoom dinañu jël sunuy documentation di ko utiliser mais au contraire dinañu am ay jafe-jafe aussi pour seen étude d' impact environnemental yooyu seen plan de gestion environnementale et sociale mooy lan moo di ne ab projet bu bëggee implanté wu bu ko santee bu nekkee si norme yenn yi parce Sénégal dafa catégoriser entreprise yi dafa am type yu nga xamante ni il faut que ñu def étude d' impact environnemental bu ñu koy def dañu war a ñëw si population bi wax ak ñoom consulter leen ñu jox leen si seen xalaat lan lañ si ragal lan lañ si tiit loolu def nañ ko si aprosi def nañ ko si usine bu mel ni Sky mais la ñu waxante ak ñun bu paree foofu la ñu koy teg dem def lu leen ne en commençant par aprosi aprosi tey boo demee si étude d' impact environnemental am lii la Aprosy wax mu ne si barrage bi day bu ma ko defaree bu ñu defaree barrage bi man aprosi engagé wu na def benn suivi ci ndox mi tang bu amé jafé jafé wala bu amé ay soppeeku man dina ñëw ma def ko loolu dina ko def juroom benni weer yu nekk génné résultat yi génné échantillon yi bu fa jafé jafé amé man dina fexé naka lañ koy euh, naka lañ koy corriger naka lañ koy restaurer mu né man dina taxawal ak commune Diamniadio benn cadre de concertation pour lépp lu ñu fiy doxal si aprosi ma sékk ak waa pourquoi parce que ñom ñoko joxone souf sa mais loolu dara lañ ci deful ba ñu ko defee la ñu oññeeku continuer di di def nu mu leen nu mu leen nee mu ne aussi moom à part loolu ñu gis aussi que ne projet boobu li muy rëy rëy rëy li fi usine nekk deux cent onze usines lañ fi préparé mais tey boo compté woon doo fa fekk fukki doomi gox ba yu fa am un emploi durable lu ñuy wax emploi durable waxuma xëy tey ñu jël la bu subaa ñu bàyyi la emploi durable la wax gox bi am na ay cadre comme ni ko cadre fépp amee naka la ñu mën a implanter lu day nii seq xax collectivité territoriale bi ba projet bi taxaw ñu woon leen ginnaaw amul benn doomu gox bi bu fa am tey boo mën a cité ne am na fa responsabilité bu solide ku ko xam na ko wax fii si mbooloo bi devant toute la presse. la même chose la ñu gis si entreprise bu ñuy wax Sky si dañoo cité Sky si am na yeneen entreprise yi ñu ngi fi di polluer lu tax ñu cité ko parce que dafa andi jafe-jafe bu tar si gox bi. depuis daanaka parce que en 2013 la ñu commencé aménager entreprise boobu ab projet bi c'était en 2005 Sky si bi ñu ko installé bu pare mu usine bu nga bi néna day récupérer ay ay huile morte diko defaat gasoil bax légui ñu ngi polluer atmosphère dam a fi lu wër lu ëpp ñaari kilomètre man fi presque 1 km de 1 un kilomètre bu ma fajar odeuru usine bi mom mom mom mom rawati wala quartier bu melni donc mu ay problème yu nga dafa tar la même chose dafa dem parce que Sénégal dafa am ay normes ce qu'on appelle la norme 05 651 norme 05 652 en matière euh, si déchets yi naka lañ qui, traité kii des dafa jël ay engagements si fort, yu lèr. Tay, na ngeen delluwaat ngeen yëraat ñoom sen sen sen sen document yoy sen étude d'impact yoy mais di ngeen rendre compte que amul dara lu ñu wax té tay ñu ngi koy appliqué loolu nag jaaxaluñu parce que ay capitalistes lañ ko séxal mais xam nga lan moo ñu jaaxal moi, am autorité yo xamante ne wara suivre suivre mise en œuvre bi ñu toog di leen c'est un point d'interrogation pourquoi parce que mbir bu amee am na lu loolof dane lépp lu lu lu ko pourquoi Nous def du point de vue contractuel parce que document étude d'impact environnemental bu ko ministère de l'environnement autorisé dafay donne un document bu nga xamante ne bii dafay am foire de contrat parce que dafay dugg ci biir contrat nous accepter leen Lors d'ailleurs moi, nous disons di accepter pour nous installer alors bi ñu accepter pour nous installer wu bu pare pourquoi nous jéggi yoon yoon di leen gis bés bu parce que am nañ ci ay firnde ñun ànd nañu ay yoon ak euh, autorité yi interpellé nañ leen ay yoon te ñoo ci parce que on a vu que ne nit man def naa ay recherche sur internet y a eu beaucoup d'actions yu ay nit ñu dëkk fii ay population yu dëkk fii yu mëne foofu pour xeex Ici, iskaay si directement en un ñu demee ca biir ba gis usine ba lu nu bëgg mooy Sky mu jóge fi Sky si Sky si moom du usine bu ñu mën a mettre aux normes parce que boo duggee ci biir rek nga xam ne usine bi le est déserte beneen bi moo di ku demee ni Aprosi Aprosi problème ba fa am moo di colonie zone industrielle bu day nii te système d'assainissement ba baaxul aménagé wu ñu assainissement bi mbedd mi mbalit yi amuñu fu ñu ko traité loolu c'est un sérieux problème